yaakaar naa ne jëmm ji ngeen jàkkaar lool miin ngeen ko ndax bërki démboo Ndiaye def nañu émission boo xam te ni bu cartonné la Sénégalais yëpp di ko bàyyi xel ñu ko waxee nag muy xale boo xam te nii suñu borom daf ko may ci wàllu xam-xam buñ ko waxee di sëriñ fàllu Kënzel ngeen gis nag mbokk yi yaakaar naa ne li tax ñu naan jeexaat la foofu res ndërëm delloo fa sa loxo jeexaat yaakaar naa ne dañoo def émission bi sénégalais yu bare bare bare apprécier ko di ko laajaat moo tax ñu war a jëflantewaat ak moom sëriñ Fallou ñoo ngi lay nuyu di la ziar waaw maa ngi lay fay nuyoo bisimilahi nuskum ni juddukum jaababikum bisimilahi jàmm rahmaani jàmm rahimi jàmm ku bi doo ko maa ko deli si ne min xam lii càpp mu juróom-ñaari tànk inne juróom-ñaari tànk jinne bu mu baax bu mu suusuran tegg ma tëj ci ak mhm. la mhm. mhm. li ñuy njëkkee mooy ci tiis bi nga xam ne moom moo dal sénégalais yu bare bare bare bari muy askanu sénégal tiis moo ñu dal bu méttee méttee métti muy sunu yaay jaaga di yaay wàllu sekk bi génn àddina mu nekk nag tiis boo xam te ni daf ñu bett loo ñu ciy wax ci boobu lu metti la waaye kulli man xaala yaa faani kulli nafsun saayxatil mawti bakkan bu musu rek da nga musu dee xalaa kulli yaal waali na li ko dal metti na nga judd nekk sën di way ñëpp ràññee la nga amoon wéeruwaay boo keesoo gis sa baay nga dem ba ci kanam yàlla def ni mu génn àdduna ki nga xam ne tey da nga woon ci moom muy sa mag foo geesu gis ko ñu ba ci kanam yàlla jël ko ñuy jooy magam noppeegun ñu doxal tuuti yàlla jël waajuram waali na li ko dal na nekk na naqar woo xam ne waaye lépp na delloo xelam lépp tayit na xam ne yàlla suñ borom la subhaanahu wa maa ngi koy ñaane yàlla may ko xolu muñ ki na juuf jaag yàlla yërëm ko taxaaru ko àjjana wa maa saxit naa ilaa bi ma xalim naa dafa am génn kilifa gu mag goo xam ne damaa dem këram. seede yàlla ñu toog ba ay trois heures mu ne ma xam nga yaay Waly Seck. billaahi la si. dama est-ce que xam nga ne bari na ay néew yu ni rob yoof la ci war yëpp moom moo koy def. ci wàllu defar beeg yëpp. mu nekk soxna soo xam ne daawoo ko gis fenn lu yor kurusam ñaanal ay doomam foo ko fekk rek lu baax lay wax. kon ba pare tamit ci weer wi mu génn àdduna makkan di weer woo xam ne weeru ngëneel la weeru tawféex maa ngi koy ñaan ci barke yonent yàlla Muhammad ci barke yonent yàlla Muhammad ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla bu mu rëccoon du ñëw ci àdduna yal na ko yàlla xaara àjjana waale may ko xolu muñ Aliñ Seck na di doomam danoo mos a daje benn bërëb mu yëkkati xaalis yu bari jox ma dama wàcc sama oto rek mu ñëw jox ma xaalis ci nu ma sëñ bi maa la ko jox addi Cheikh Fall ma ne ko foofu laa ko jàppee na mm-hmm. kon maa ngi ñaanal wàll yàlla may ko xolu muñ mm-hmm. di wax ne sëriñ si mm-hmm. ñi ciy génn di wax makan gis nga bës du dara bul bëgg nit ñi woo la bul bëgg nit ñi di la bàyyi xel da ngay gis sëriñ soo xam danaan jaaga gis nga makan gis nga àdduna bii nii lépp loo xam ne waxoon naa la ko suñu émission bi ñu muy jinne muy rab lépp loo xam ne yor nga ko ba di ko bàkk yàlla suñ borom moo la ko jox sëriñ si nañuy delloo seen xel ci yàlla te xam ne lu am yàlla suñ boroom la te dafa am loo xam ne dama koy gis sëriñ si di ko def ñu bari ci la ñuy configurer nit ñi sax pour ñaanal leen muy diw day dee accident yi bari day am wala tey làmb am nga ne kii day daan bakkan yooyu du xam-xam gis nga yooyu noonu nekkul xam-xam te bari na nit ñu koy def ñoo xam ne ñu ci baree baree baree baree bari ko defee buñ defaatee buñ defaatee li ñuy wax du am te gis nga yàlla du xamal kuy wax te inna allah yaxlamul xayb baatum xëy bu yàlla suñu borom dong moo ko jagoo te yàlla dafa fiir ci nguuram gi man de comme li may wax rek du ma garanti nit ki ci ñaan boo ñëwee ci man am aajo ak aajo yi ñu mën di toll damay sokkoo ko ndimbal ci yàlla ñaanalal ci yàlla mhm. te yàlla dafa wax ci alxuraan maa farax naa kitaab mi sayin mhm. maanaam bàyyi ma dara ci alxuraan mhm. te wununu su muy sifaaw maa war a wax tamit ne moom ni na nee na alxuraan laa wàcc muy fee bépp njàqare woy julli di ko gëm kon alxuraan lépp mu ngi ci te yonent ñaan na mu du ñàkk makkan day mottali te loolu li wér ndax yonent bi nee na àdduna silaa nii ñaan dafay ngànnaayu jullit maanaam nit ki war nay jëfandikoo alxuraan mais na sell da nekk ay loo xam ne tey maanaam comme euh, fi ma bëgg waxee mooy sulmaan yu baax na nooraan yu tey baax na waaye ñii ñaan maa ngi wax képp koo xam ne ñëw na ci yow di la ñaanloo yàlla makan bul garanteel kenn ci li ngay ñaan ndax suñ borom mooy nungu dafay am ci ay mbër yoo xam dañuy ñëw bu ñeema seetal leen mhm. ne leen combat bi lii la ak lii la mhm. dafal nangam ak nangam nga daan mhm. léeg-léegi na ma wax mbër na ko dafal nangam du ko def loolu léeg-léeg damay naqari moom léeg-léeg ma ñaanal nit léegi jox ko càngat na ko bii set suur nga koy sangoo bii juróom ñaari fan nga koy sangoo mu commencé ko ñaari fan ñett fan ñeent fan bàyyi léegi na loolu bu amee na motuwoo sa ma la nga bëgg doo ko am loolu léeg-léeg dañ ci am ay cas yu bëree bëree bëri jox nit ki càngat mu sangoo ko ñaari fan ñett fan bàyyi yooyu bu ko defee ñuy sikkal sëriñ bi naan sëriñ bi xamul loolu dafa bari fi mu ne nii waaye man képp koo xam ne yàlla dogal na nga ñëw ci di sàkk ñaan ci man nga topp samay traitement ni ma la ko waxee ak lu mën di toll yàlla dana ko saafara foofu laa nekk kon bisimilah. ba tey tamit li may ñëwaat ci actualité mooy Sénégal yaakaar naa ne qualifié na moo jël pied ci coupe de Afrique bi ba xam Sénégal day jël coupe bi wala ndax foofu foofu lañ toll fi mu toll comme qualifié nañu. loolu sant yàlla rek. Mhm. premier match dóor na deuxième match dóor na troisième match ñu dóor. Mhm. ñu qualifié. Mhm. képp koo xam ne sëriñ nga. yor nga sirru. ñaanal yàlla Sénégal indi coupe bi. gis nga Sénégal bu indi coupe bi. askanu Sénégal gépp ñoo ko bokk. kon dañu bàyyi bu mu wooyee tey ma ñaan ci maxi bi. man de senegal di buy fubal mm-hmm. ma xool ko mm-hmm. gis sarax dinaa mm-hmm. ko def ngir jëm yàlla ji ak Sénégal gi ma bokk waaye bu kenn taxaw fii maa tax coupe bi ñëw xanaa xamu ne léeg-léegi nit damay woo téléphone sax dama max bi max Sénégal boo ci gis ma xam ne yàlla am na lu ma ci xamal mais dama naa gisuma ci dara nekk nit koo xam ne gaaw maa wax na moom mais lu ma wax man ci àddina suñ borom dafa ma ci sutura dafa am ay dafa am ay doomu aadama yoo xam ne yàlla daf leen di nekk dafa ay ay doomu aadama yoo dañuy nekk ay xaritu yàlla lu nu wax rek wala kun ànnal yàlla dafa lañ sutura boo xoolee arène nationale mbër yi ma fa indi yëpp sama borom dafa na ma ci ndam ñii danoo daan ñii mag si nii noonu ñoo fa indi ñëpp daal ci gàttal ñëpp la ma yàlla dafa mais lépp yàlla suñ borom la lépp borom bi subhaanahu wa taala la kon dama lay delloo kàddu gi ñu dugg ci waxtaan wi Makka bisimilah. ba tey li nga xam ne ci la dugg muy arène nationale. nga xam ne moom moo di actualité ci diggante Balla gay 2 ak ki nga xam ne moom moo di Tapha Tine xaw na coow li bari trop loo ñu mën a wax ci combat boobu Balla Gaye Tapha Tine. waaw Balla Gaye Tapha Tine na làmb jooju noonu. xam nga des na sept mois. mais làmb la joo xam ne euh, lamb baatin lay nekk na. Mhm. waaw làmb ji loo xam làmb baatin lay nekk la. Mhm. mu nekk làmb joo xam ne jamono ji ma wax ak yow sëriñ bu génn la gis naa làmb ji day waxee bakkanam wala day waxe lu ko neex rek te làmb jooj na am naa ci yaakaar du ma bëgg wax sax mais am naa ci yaakaar ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ma ñaanal ci benn mbër du ma tudd tur wi na moom mais ci kàttanu yàlla incha allahu taala bu nu yàlla defalee jàmm ba ma ñaareel ci mbër ànd moom arène nationale yàlla dama jëfa sutura incha allahu taala makan ba pare tamit may wax ne dafa am ay nit ñoo xam dañ ma woo téléphone du ma jot waxtu timis bu ñu jëlee timis ba pare ku ma woo téléphone da ma jot wala ginnaaw fajar gi ku ma woo jotoo ma bàyyil ma vocal dinaa ko liir moo xam ku bëgg seet gi la xam nga tey nit da lay woo téléphone xam nga seet moom du ma ne wax man maa ko fi dàq mais yàlla am na lu ma ci jox loo xam ne képp koo xam ne defar naa la ko nee naa la 30 audio laa lay envoyé bu ma lay seetal dama la koy vocal da ngay fata sa loxo ni joor bii nga envoyé ma ko envoyé ma sa turu yaay ak at yi nga am ma defar la vocal seetal la ko nga diglu lépp lu nekk ci yow makat dafa am ay doomu aadama yoo xam ne dañuy bokk ci naari yu dafa am ay doomu aadama yoo bokk ci hawaa yu mooy ngelaw dafa am ci doomu aadama yoo xam dañuy bokk ci naar yu muy safara dafa ay doomu aadama yoo xam ne dama xam nga doomu aadama ñeenti mbir la maa iyu naar yu xawaa iyu turaab yu dafa bari ay doomu adama yoo xam ne ñi bokk ci maa iyu muy ndox ñoon suñu borom daf leen jox alal dañ koy barile mais pour mu toog du yomb ci ñoom am ñoo xam ne dañuy bokk ci tabixa uhuh. naar yu muy safara ñooñu makkan dañuy yor yaa daf leen di dimbil da di aw wërsëg mais day tàng jër kenn du leen ñemee dafa am ñoo xam day bokk ci xawaa yi muy ngelaw ñooñu pour ñu yor dara lu ñu yor daanaka day naaw pour ñu yor dara téye ko day jafe fi ne nit a ngi bëgg kayit uhuh. xanaa xamoo ni nit a ngi nekk Europe bëgg uhuh. kayit uhuh. wala ñu nekk fii Sénégal bëgg dem bëgg visa ñi seen tabeexa nekk naari yu dafa bari ay sëriñ yi leen seetal di leen génn loo saraxu këriñ xam nga naar yu dafa am ñaari façon mhm. xam nga da ngay dégg sëriñ si na naar yu mhm. ak maa yu ànduñu maanaam safara ak ndox da bari sëriñ si wax naan ànduñu xam nga dafay bëri sëriñ si wax naan ànduñu mais dafa dafa am dafa am ay façon mhm. dafa am ñaari façon naar yu yaa ngi comprendre baax baax mais loolu ci ni mis ci ni mitire asaraal ñoo xam xam nga asaraal dafa nekk xam-xam boo xam ne xam-xam bu wàgg la dafa nekk xam-xam boo xam ne xam-xam bu yaatu la mm-hmm. fi ni nii am na ci jaaro boo xam ne ñu koy wax muluk Souleymane mm-hmm. dafa naan bi mujjee génne émission jaar boobu wax naa ci na la jaaro boobu ku nuru te tekk dimbali say waaju doo ko takk moom lay wax muluk Souleymane waaw da dafay dox ki nga xam ne maanaam yàlla dafa dogal waaw moo nekk ñi ma takk <laughs> ja waaw moo nekk ñi ma takk jaaru bii nii mm-hmm. nee naa ku tekk dimbali say waaju doo ko takk jaar bi boo ko takkee da nga ubbeeku ci wàllu wërsëg boo ko takkee yàlla dana la defal kaaraange dafay ànd ak càngat na juróom-ñeent càngat lay àndal càngat gi na cent soixante-quinze la càpp moo nekk nii ma tàllaloon bi ñuy commencé léegi émission bi waaw xam nga cent soixante-quinze jàpp fidda waaw xam nga càngat gi moo nekk nii mhm. mais du benn kayit bi kese mhm. fukki kayit la ak benn Hmm. xam nga ne lii makaan xam-xam la li loxo moo koy bind du machine du dara li nga sama loxo bii rafet bii nii mu rafetee nii hmm. makaan gis nga mbind mi nii mu rafetee nii hmm. mbind moom yàlla dama ci defar xusoosiya soo bàyyi dama ne ko ñaan moom mën a bind mun a sekkri bind taaru tànk la mun taaru tànk la na yàlla dafa dogal ba jàng jotee dama jàng mbind soo ma bàyyi nekkoon ñaan ko tu yàlla bu ñépp ràññee ma jàngee ci la mhm. sëriñ daam si la moom ma jàngal alxuraan mhm. xam-xamu asraar ma jàng ko mhm. maîtriser xilmu nujuum maîtriser maanaam maanaam xilmu nujuum xam-xamu biddiw mi mën a dagg xaatim ba pare tamit bari na ay nit ñoo xam ne xaatim moo leen tëj makan dañ koy sangu na ñuy dem rek mu xooj jox leen ñu raggoo am na ñoo xam ne dañuy dem rek ñu dagg xaatim jox leen ñu raggu te xanaa xamoo ne kaat xaatim boo koy dagg da ko war a pees war ko kalkin makan yooyu fi ne mënul lu bindal càngat ma xool say mbir nga tëju. Mhm. mënoo am dara. Mhm. fi ne nii am na ci càngat goo xam ne boo ko sangoo. Mhm. xam nga fi nii dafa bari ay doomu adama yoo xam ne lu ñuy lijjanti day dëgër. lu ñuy lijjanti day dëgër. te loolu fi mu ne naa ci càngat goo xam ne. càngat gi arab nasara la. mais da nga koo tëggee wàqiya. wàqiya lay sali wàqiya. moom la ko tëggee. gis nga càngat googu dafay ànd ak ay parfum. lu ci mën a kaafin kaaf. lu ci mel ni bintu soodaan mm-hmm. lu ci mel ni misk màkka sangar mm-hmm. googu bu ma da ko liggéeyee mm-hmm. ak yow war a àndal yëpp ay sunguf jox la ko nga sangoo ko bu dee yow da ngaa tëju mënoo am dara boo ko sangoo da nga ubbeeku ci wàllu wërsëg ba jaaxal sa bopp kon naa delluwaat kàddu gi bu fekkee ama nga yeneen question bu ko defee ñu rafetlu ko ñu gàttal émission bi comme que euh, temps amut bisimilah kon fi ñuy tënkee mooy fi nga xam ne ci la tëjewaale muy muy sunguf si nga xam ne da nga koy jox jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy lu yàgg tëw am doom foofu rek laay tëjee ak yow ñu tëj émission bi sunguf si. waaw garabu gàttal bëgguma di ci wax sax. man li ma yor moom. dafa jeex sax. nekkul looy naan nekkul da nga koy diwoo kase. garabu bi ma yor da nga koy diwoo kase. te dafa bari ay ay ay góor yu may woo. maanaam di wax noot. noot nopp ak. noob ak noot bokkul maanaam noob ak noot makan bokkul noob ki nga koy def mooy noot ki nga koy def mooy dangay nekk ci entreprise bëgg jiital nit ñi nga noot leen ñu topp la noob na mooy diggante jëkkër ak góor way dencante noob moom makan képp ku moo ko dafa laax mën naa laa garantir noob billaahi wallaahi wal kitaab bëgguma diggiñ sax uhuh. mais képp koo xam ne noob bëgg nga ko uhuh. moo xam du ma ko defal koo xam dafay caaxaan la mm-hmm. maanaam nga nekk ak jigéen tey mu nekk sa borom kër mu dëddu la tey mm-hmm. wala tey nga bëgg tey tubaab boo xam danga ko bëgg takk tey mm-hmm. wala ku góor gi bëgg ko xattaa nga bëgg koo nopp tey loolu moom li ma lay defal mën naa la cee garanti nopp gi may def na sept jours lay diir juróom-ñaari fan bu dee jigéen dana la topp bu dee góor dana la topp may nuyu baax baax na waa janwaar may nuyu waa janwaar baax baax baax baasul baasaat maa ngi leen nuyu bu baax a baax baax baax baax baax di wax na ko dan yemale fii suñu kàddu kon mhm. ko temps amut te jot amut mhm. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp mhm. di sant ñëpp tamit di ñaanal ñi xam ne dañoo tëdd ci l'hôpital yi yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu jigéen jàmm ñi jaaw bi feete ginnaaw ubbi leen yàlla yàlla def ci réew jàmm élection yii di ñëw na maa ngi ñaan élection yi jàmm ak salaam encore une fois fay waxaat rek mooy Macky Sall sant yàlla baax baax baax baax nguur gi mu nekkoon dafa naan am na ci ñaari mandat yàlla jox ko ko mm-hmm. mu war a dem mm-hmm. kon na dem na demee amin bu rafet mm-hmm. man na ku ma xam-xam ne Pastef laa bokk moom moom Pastef laa bokk te Bassirou Diomaye Faye maa ngi koy ñaan ci barke alxuraan ci barke yonent yàlla Muhammad wax bii bu ko dagg Pastef laa bokk waaw maa ngi koy ñaanal yàlla jox ko réew mi ci barke yonent yàlla Muhammad di nuyu sama waajur wu sell wu baax wi di sama yaay jërë ngeen jëf yaa maan laa mm-hmm. jërë ngeen jëf mm-hmm. jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf